wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat mbokk yi ginnaaw bu ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala ziyaar euh, sëriñ Muntaqa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te gën ko wéral ñun waa Touba ci kanam la commission des finance ci sous commission gestion des fonds moo fas yéene ñëw indil leen bilan mois de février bi incha allahu rabbi di wax rek ne euh, ci mois de février bi Touba mi ngi versé quarante sept million deux cent trois mille Wave ñu versé ci deux millions quatre cent soixante dix neuf mille huit cent euh, compte Orange Money bi nga xam ne mooy soixante dix huit cinq cent quarante quatre trente trois trente trois ñu versé ci un million quatorze mille sept cent vingt cinq virement wu février ci plateforme Wave bi ñu verseel ñu quatre millions trois cent cinquante six mille sept cent quatre vingt quatorze Orange ci dièse cent quarante quatre dièse six cent vingt ñu verseel ñu quatre millions soixante quatorze mille sept cent soixante Dakar versé ci bureau bi nga xam ne fa la bu sa nekk ak El Hadj Ndaw sept millions cent dix mille cent cinquante Kayar Soxna Astu verse trois cent cinquante mille Serigne Papa Gueye ca RTS verse quatre mille Soxna Yaay Fatma Dieng verse soixante-dix-sept mille moom ma nga nekk ca Yarwaay Mbacke Soxna Ñaaw Mbacke Soxna Mbeen Mbacke ak sëriñ Mama Fall ñu verse quatre mille francs ca Guy Mouride ca Rufisque Serigne Maguette Dia soixante mille francs Bambey Serigne Abdou Fall versé cent mille francs Fouta Arelo Serigne Khadim Sow versé vingt cinq mille francs Couragement Diaroumbe Serigne Modou Makhtar Mbaye versé quatre vingt quatre mille francs Touba Soxna Soda Diop cinquante mille Diourbel Soxna Ndeye Ndiaye Manel versé sept cinquante six mille Njote Siyaan soxna maam Jaara Mbàkke versé deux cent mille francs Fuuta Bukki Laaje Mouhamadou Fadal Dia versé cent quatre vingt sept mille Kellel Serigne Cheikh Diop versé cinquante mille francs Goudiri Serigne Damba versé quatre cent trente cinq mille Joal Serigne Bassirou Thiaw versé cinq cent quarante mille Kaolack Serigne Moustapha Touré versé million millions deux cent cinq mille Kébémer Serigne Gora Sylla versé un million Kédougou Serigne Modou Lo versé six cent mille Xombal Soxna Xumma Touré ak Gallo Dieng versé cent trente mille Kolda Serigne Moussa Sène versé trois cent soixante mille Louga Serigne Moussa Bassirou Mboub versé deux millions cent vingt mille Matam Serigne Ndiaga Diouf versé quarante neuf mille Mbour Serigne Mor Souran un million sept cent cinquante mille Ndop Ley Serigne Fallou Fall versé dix huit mille Moudéri Serigne Ndiaye versé cinquante mille Ndiawara Serigne Cheikh Anne versé cent cinquante cinq mille departement Dagana Serigne Alioune Gningue versé quatre cent soixante-douze mille Saint-Louis Serigne Ridial Seck ak Soxna Rama Fall nañu un million cent vingt-deux mille Tamba Serigne Adama Niass versé na deux millions dix mille francs Sanc Bambi Serigne Khadim Niang versé na soixante mille Ngaay Soxna Maguette Jiite versé na deux cent soixante mille Diawbe Serigne Bara Diop versé na deux cent cinquante mille Thialé soxna soxna ka versé na cent douze mille Casamance Serigne Mamadou Khary na quarante et un mille Daaru Muxti soxna Muslim Bakke versé na cinquante cinq mille Tawa Ndiaye soxna Nogay Kebe versé na dix soxna Ummi Mbakke Galas versé na deux cent cinquante mille njàpp ndal soxna abi fay versé na vingt trois mille daaru baaxum soxna xadi njaay versé na cinquante mille njubaan soxna maam busa ngom versé na vingt mille francs kolobaan soxna caam versé na deux vingt huit mille francs euh, versement anonyme ñi nga xam ne dañoo dem ci banque yi wala ñu dem feneen dugal xaalis te du ñuy def seeni tur ñooñu versé nañ un million sept cent soixante onze mille huit cent un franc ah, li nga xam ne banques yi dañu ko doon jëlal weer wu ne te suñ koy jëlee dañu koy delloosil delloosil nañu ci weer wi cent quatre vingt mille neuf cent cinquante sept franc total encaissement zone nationale mu ngi nekk quatre vingt cinq millions soixante sept mille neuf cent quatre vingt huit ma baamtu ko quatre-vingt-cinq millions soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt-huit francs loolu mooy li nga xam ne moo ñëw ci zone nationale bu ñu demee ci zone internationale bi nga xam ne moom mooy diaspora bi dañ koy tàmbalee ci Asie Japon Cheikh Jigal Diop versé na cent quatre-vingt mille francs ñu ñëw ci zone Amérique Canada Serigne Pape Amar versé na cinq cent cinquante-six mille États-Unis Serigne Souhaïbou Seck versé 3 millions 863 mille 300 Argentine Serigne Papa Soda Sey versé 450 mille ñoom seen total ci zone Amérique nekk 4 millions 869 mille 300 bu ñu ñëwee ci zone Europe bi boo demee Allemagne Serigne Abdou Salam Faye versé na 772 mille 61 Italie coordination ba nekk ci Italie versé nañ 2 millions 794 mille 235 soo demee France ci coordination ba fa nekk versé nañ deux cent mille boo demee Espagne Serigne Malick Dieng versé na fa trois cent soixante onze mille trois cent trente deux francs bu ñu boolee seen la nga xam ne moom lañ versé Europe yëpp quatre millions cent trente mille six cent vingt huit francs bu ñëwee ci zone Afrique Maroc Serigne Albouri Seck versé na deux cent trente mille Libye Serigne Modou Bakhoum versé cent soixante cinq mille Togo. Serigne Assane Mar versé cent six mille Mali Serigne Alioune Wàcc versé un million cent trente huit mille cinq cent Côte d'Ivoire Serigne Mor Fassa versé un million huit cent soixante cinq mille Gabon Ela Serigne El Hadj Fall versé sept cent soixante six mille Afrique du Sud Serigne Mor Dieng versé sept cent quatre vingt dix mille Guinée-Bissau Serigne Modou Atasek versé huit cent quarante quatre mille trois cents bu ñu boolee li dugg ci zone Afrique bi yëpp mi ngi nekk cinq millions neuf cent quatre mille huit cent francs loolu mooy li nga xam ne moo dugg ci zone Afrique bu ñu seetee nag li nga xam ne moom lañ jaay ci carte yi ak ci reçu yi mois de février bi total bi yëpp ngi nekk cent millions cent cinquante neuf mille sept cent seize francs kon loolu mooy li nga xam ne moom la ñu encaissé bu ñëwee nag kii léegi jaayante assainissement bi nga xam ne dañu mooy li nga xam ne moom la ñu moom la ñu dajale ci jaayante yi mu ngi toll ci un million cent quarante mille quatre cent ma baamtu un million cent quarante mille quatre cent su fekkee cent millions yi ñu leen tuddaloon léegi muy cent millions cent cinquante neuf sept cent seize bu ko fekk se dafay nekk léegi totalu li dugg ci mois de février bépp cent un million trois cent un mille cent seize francs ma baamtu 101 millions 301 mille 116 francs loolu mooy li nga xam ne moo dugg ci euh, xaalis ci février ci Touba ci kanam léegi nag li nga xam ne moom lañu ñu dépensé ci euh, mois bii nga xam ne mooy mois de février ci euh, Touba ci kanam li ñuy wax mooy bu fekkee ne dañu ñëw ci chantier yi dañuy tàmbalee ci Daaru Xadim Daaru Xadim ñi ngi fa dépensé ci mois de février bi trois cent quarante deux mille cinq cent bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moom mooy euh, université chantier université ña nga fa dépensé deux millions six cent soixante mille bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy defar yoon yi ñu koy wooyee opération defar yoon yi ODY ñi ngi dépensé ci loolu vingt millions six cent soixante treize mille cent soixante quatorze suñ ñëwee ci chantier yi nga xam ne mooy yu ndaam ci poste de santé bi ñuy def foofu ñi ngi foofu dépensé trois millions cinq cent vingt deux mille cinq cent dix bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy commission communication ci mois de février bi ñoom ñu ngi dépensé trois cent cinq mille francs commission bi ñuy woowee commission logistique ñu ngi dépensé ci mois de février bi deux millions deux cent soixante quinze mille cinq cent trente quatre francs deux million deux cent soixante quinze mille cinq cent trente quatre francs commission logistique commission bi nga xam ne sous commission bi nga xam ne moom la ñuy wooyee leeral nga xam ne ñoo yore làmp ñu ngi ci dépensé vingt quatre millions huit cent mille trois cent vingt quatre millions huit cent mille trois cent yooyu li ko waral mooy dañu jënd ay lampadaire yoo xam ne dañ ko war a def ci fii euh, autoroute bi nga xam ne moo jógee ci deux voies yi jóge ci croisement wu garage bi wuti fi nga xam ne mooy yoonu daara yi ci bëj saalum bi te sëñ Mountakha jox ñu ndigal ne nañ ko leeral ñu jënd ay lampadaire nag jënd lu war a toll ci téeméer ak juróom-ñetti fukki poto yoo xam ne dañ ko jënd ñu ngi ko jënd vingt trois millions sept cent vingt cinq mille huit cent loolu moo tax bi dépense wu opération leeral toll ci vingt quatre millions huit cent trente mille trois cent bu ñëwee ci li nga xam ne maanaam am na ay restauration yoo xam ne def nañ ko ci réunion yi ñu doon def fii ci tubaa ca kanam muy bi ñuy taxawal comité directeur bi te yendu woon ci kër Sëñ ga def nañ ci restauration boobu cent mille francs visite de chantier yi nga xam ne dañ koy def di yendu ci chantier yeeg yooyu restauration bi trente mille francs la am na jàppale boo xam ne jàppale nañ ko croix rouge ci cent mille loolu bu ñu ko boolee deux cent trente mille francs la euh, bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy reboisement foofu def nañ fa dépense su deux cent douze mille huit cent vingt cinq francs deux cent douze mille huit cent vingt cinq francs ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyee Kër Gol ak Boobaral ñuy soxna yi defar foofu ñu ngi leen fay ci lu tolloog cent quarante mille francs ci mois de février bi euh, bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moom lañ def ci massification muy ay réparation ay stand yi ñuy defaral yooyu fay nañ ci dix huit mille francs li nga xam ne moom lañ def ci frais mu jëm ci bureau yi muy bureau Dakar ak euh, bureau Touba bureau Touba ñu ngi fi def euh, ay frais yu sew sewaat quarante sept mille cinq cent euh, bureau Dakar ñu def ci six mille huit cent frais bancaires yi nga xam ne moom laa leen doon wax ci njalbeen ci tàmbali ba nga xam ne bu weer wi dee waa banque bi dañ koy jël bu ñu baree defaat ko ristourne mu ñëw ci ñun loolu joxe nañ ci soixante seize mille cent quatre vingt six francs kon li nga xam ne mooy euh, décaissement yi total bi yëpp mi ngi toll ci cinquante cinq millions trois cent quarante mille trois cent vingt neuf li ñu décaissé lépp génn ko ci mois de février bi cinquante cinq millions trois cent quarante mille trois cent vingt neuf francs la li nga xam ne moom lañ jot a dajale ci xaalis yëpp ci mois de février deux mille vingt et bi mi ngi toll ci cent un millions trois cent un mille.

huit cent quatre-vingt-cinq millions six cent un mille huit cent soixante-huit amoon ci banques yi buñ ko boolee ak li nga xam ne moo des ci weeru février kon banques yi fii ñu toll ñoo nga fa am neuf millions cinq cent soixante-deux mille six cent cinquante-cinq francs neuf cent trente millions cinq cent soixante-deux mille six cent cinquante-cinq francs mooy li nga xam ne moo nekk ci compte yi mbokk yi waa Touba ci kanam ñoo ngi leen di sant leen gërëm ci seen yàppandeel ak li ngeen xam ne yéen a ngi koy def muy jëm ci liggéey bi na leen leer na yéen su dul woon ak yéen lii nu man tey dee su ko def kon kenn ku nekk na nga xam ne sa ñaar téeméer moo defar liñ fi lim lépp moo defar opito yi moo defar sant sant yi moo defar école yi moo defar daara yi moo defar yoon yi moo defar assainissement bi kon Touba ci kanam mi ngi naan la jërëjëf di la sant di la gërëm asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu